ngoog mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ngeen di wéy di ci ànd ak les programmes de la 7TV télé bi ñu niru ba noppi di ñu dajale ñu utaleetu yéenekaay yi ànd ceeg Pape Malick am Pape Malick ban yéenekaay la ñuy tàmbalee tey ay Aïcha ñuy euh, tema tàmbalee li nga xamante ne mooy revue nii si yéenekaay yi euh, par témoin journal Le Témoin ñëwaat si dialogue national bi dialogue national bi ñu war ko tàmbali fële si Diamniadio euh, war a waxtaane li nga xam ne moom moo di justice nee na nag waa témoin ñi nga xamante ni ñoom ñoo porté li di projet bi ñoom ñooy war a waxtaane li nga xamante ni moom moo di yoon ndaxte ñoom ñoom ñoo ko digge woon li nga xamante mooy waxtaan bi nag ñeenti fan lay mat ñu waxtaanee lépp lu nga xamante ni moom moo di yoon euh, keneen ki nga xamante ni euh, beneen yéenekaay bi ci addu euh, moom moo di quotidien journal Le Quotidien ñëwaat ci li nga moom moo di yoon ak tamit nan lañ ko war a tënkee na ginnaaw bi ko waxee boobu ba léegi mu ngi doog a sotti wax tamit ci lu nga xamante ni moo di procureur waxoon ne dafay jébbal jàpp ñi nga xamante ni limoon nañ leen ne ci wàllu njuuj njaaj bi Covid 19 bi loolu euh, ba léegi euh, quotidien gisagu ci dara euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy enquête nee nañu lu ñu mën a xaar ci mbir mi ci dialogue national bi lu bëre bëri la ndaxte nee nañu assises yi ginnaaw def nañ ko fii juróom-ñaari at yi weesu dialogue bi lu am solo la ba noppi si ñi nga xamante ni ñoo ci war a addu ku ci mel ni Alioune Tine Moundiaye Cissé wala sax Elimane Kane ñoom ñëpp war nañ ci wax ñu ngi koy dëxañ ci biir journalu Vox Populi ñëwaat ci lu nga xamante ne moom moo di euh, dialogue euh, nationale bi ci jo ñu ne euh, juróom-ñeenti euh, ponk lañ ci war a waxtaanee li nga xamante moo soxal magistrat yi ak seen statut euh, fi nga xamante ni moo di conseil supérieur de la magistrature magistrat yëpp fu ñuy dogalee ak tamit téere yi nga xamante ni ci la loi Sénégal yi di tënku ngir mën a joxe justice ak tamit yenn sanction lañ mën def loolu journal Vox Populi ñëwaat na ci journal bi tamit di wéyal ne professeur Babacar Gueye directeur cabinet président Bassirou Diomaye Faye ak tamit ministre la justice justice ñoom ñoo jiite euh, euh, mbir mi ñu jugee Diamniadio dem ci biir fi nga xamante ni moom moo di euh, tribunal ci tribunal L'As Quotidien moom moo ñëwaat ci lu nga xamante ni moom moo di mbir mi soxol Bajaxate ak imam Cheikh Tidiane Ndaw ñoom procureur dafa wax ni juróom benni weer lañ leen war a tëj moom procureur moom moo wax loolu sox soxal ki nga xamante ni moom moo di euh, Bah Diakhaté ak imam Cheikh Tidiane Ndao ñoom yëkkati woon ay kàddu jëmale ko ci nga xamante ne moo di premier ministre Ousmane Sonko loolu mu ngi ci journal bi Les Échos ñëwaat ci mbiru Bah ak imam ñu ni ñoom euh, lu leen di xaar dis na lool ginnaaw bu ñu ñaanee liberté provisoire euh, juge bi daf leen ko bañal ñoom pour l'instant dañuy a tamit ñëwaat ci mbiru Bah ak imam Ndao ñu ne ñoom daanaka mbiru mbiru théâtre euh, lu ñu fa lu dégg daal niru na ak li nga xamante ni moo di théâtre ndaxte bi bu ñu waxee ne euh, tuumaal Ousmane Sonko ba jaxatee euh, euh, lii la wax mu ne moom waxul lenn lu dul 2016 Ousmane Sonko dafa bind benn téere ci page 20 ne jaay na këram bu njëgu 100 ci suñu xaalis te moom bu bu ñu sukkandikoo ci déclaration patrimoine bi mu defoon ci atum 2016 loolu méngoowul ci kanamu juge bi la ko waxee Imam Ndao tamit ci kanamu juge bi moom lii la wax moom li mu dégg. dégg ci média yi ñu koy wax ñu ne moom dafa baalu ci ki nga xamante ne moo nekkoon enquêteurs yi mu ne loolu dëgg du dëgg wérul moom su fekkee sax Euh, fukki at euh, moom euh, tëdd kaso defu ko muy dara ñu wax ne li nga xamante ni moom la juge bi wax moom mooy 3 juin moom lañ ci la ñuy xam ñoom ndax dañ leen di génnee wala dañ leen di tëj prison Walf Quotidien ñëw ci benn mbir bu nga xamante ne moom mooy mbiru wax yi gouvernement bi ñu ne ñi nga xamante ni ministre yi di biram Souleye Diop Moustapha Guirassy El Malick Ndiaye ñoom daanaka seen wax war nañ ko xoolaat ndaxte ñoom ay gaaf rek la ñuy def saa bu ñu yokkee yëkkatee ay kàddu euh, du kenn du xam euh, lu ñuy wax l'observateur moom ñëwaat ci mbiru euh, lekk gi ñu ne xale yi ñu ngi leen di rey ci li nga xamante ne moom mooy lekk gu baaxul chips yi ak jus yi wala sax yenn friandises yi loolu te kenn càmbaru ko loolu war nañ ci wax bu baax a baax ndaxte day joxe diabète cancer ak li nga xamante ne moo di am yaram loolu yëpp journal L'Observateur ñëwaat na ci Sud Quotidien mu ngi ñëw ci wàllu àll bi nan lañu mën a def ak ba aar ko ki nga xamante ni moom moo di professeur Waham Ndiaye euh, nee na état su soxlaa fi nga xamante ni moo di àll bi am na droit euh, jël ko loolu le Sud Quotidien wax ñu dem ci beneen yéenekaay bi nga xamante ni moom moo di le soleil le soleil mu ngi ñëwaat def euh, di ñu def ci xëtam bu njëkk école bi nga xamante ni ci Elinkine la nekk nekk ci département du si mu tudd école ghanéenne lu ñu fa nemmeeku nag euh, école bi ñaari langue lakk lañu fay def français ak anglais euh, xale yi suñuy examen dañuy dem Gambie foofu la ñuy examen loolu nekk mbir moo xamante ne intéressé nañ ñi nga xamante ne ñoo di waa soleil journal l'observateur ation ñëwaat ci lu toll ci un milliard ci suñu xaalis yoo xamante ni ay faux la ñu wax ni kii nga xamante ni moom moo di euh, Doro Gueye euh, moom doon ànd ak euh, Macky Sall moom la ñu jàpp dem yóbbu ko ci section de recherche enquête ko moom nag bu ñu ko enquêté ci ay faux yoo xamante ni kenn xamul fu mu jugee nee na Macky Sall moom moo ko teg lépp ñu dem ci non balaa ñu dem sax ñu resté tamit ci Doro Gueye nga xamante ni bés bi le jour wax na ci ñu ne Doro Gueye teg nañ ko loxo fi nga xamante ni moom moo de recherche wante mbir boo xamante ne niru na ak mbiru Daara Gueye euh, loolu bés bi le jour moom moo ci ñëwaat ak doomu Mansour Faye bi tudd Aïssatou ay Aïssatou Faye semaine bee passée dañ ko jàpp ci vingt cinq millions ci suñu xaalis ci liquide police moo ko jàpp bi mu ko tegee loxo nag après euh, gisaatuñ ci dara ndaxte euh, dañ ne Aïssatou fey dafa jël ab xaalis neexalee ko ñi nga xamante ne ñoo di policiers yi euh, numéro kenn gisaatu ko ñu ne am ñenn ñu ne papaam la Mansour Faye moom moo ci wax loolu moo tax ñu bàyyi ko boobu ba léegi nag ñaari policiers yi nga xamante ni tuumal nañ leen ci mbir mi ñu ne boo moytuwul lañ leen dàq ci biir police loolu journal bés bi moo ci ñëwaat ñu jeexalee ko rek ak yéenekaay bi nga xamante ne moom moo di stade stade di def ci xëtoon bu njëkk ñi xamante ne moom mooy juróom-ñaari gaynde yi nga xam ne démb ñoom ñoo doon entraîné euh, ngir waajal euh, coupe du monde qualification coupe du monde 2026 Aliou Cissé yëkkati ay kàddu mu ne moom buggul lenn lu dem coupe du monde waaye journal bi mu ngi wax tamit ci euh, Teungueth FC Teungueth FC nga xamante ni ci week bi ñoom dañu nekk champion Sénégal euh, pour la deuxième fois ñaareel bi yoon ci seen histoire euh, journal bi nag euh, mu ngi euh, wax ñoom nan la ñu def ba gagné lu nga xamante ne moom moo di euh, championnat bi ci Sénégal bu football Aïcha li moo gënoon a fës ci yéenekaay yi ci suba teel gi. am na solo mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Pape Malick ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi lay jaajëfal man tamit. alors ñu ngi lay xaar nga ñëw fekk suñu fii ci plateau bi. léegi léegi lay doon. merci beaucoup à Pape Malick Thiam ñu jaajëfal ko ci li nga.